militaire ci réew France jamate ko ay paaka ba mu sedd guyo yéenekaay gi di Walf Fadjri L'As Vox Populi L'Observateur Enquête Source A Les Échos Rewmi Quotidien mboolem yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyee xëy ci tournée économique bi nga xam ne njiitu réew mi di président Macky Sall ma ngi ko doon amal yéenekaay gi ne na ca Kaffrine njiitu réew mi di Macky Sall doon li nga xam ne maanaam mooy ab hôpital Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa El Hadji Momar Samba muy wax ci tournée économique bi nga xam ne moom la njiitu réew mi di président Macky Sall def nee na Macky Sall inauguré wu la waaye ñetti hôpital la Macky Sall inauguré kon nag tournée économique la boo xamante ni bu am njariñ la moom El Hadji moom Samba nee na ñi nga xam ne ñoo fi nekk di wax ne maanaam mbir mi mbirum politique la ñoo ñooñu xamuñu li ñuy wax yéene kaay gi di Walf Fadjri nee na Macky Sall soriwut ak koo xam ne maanaam ab directeur de campagne la yéene kaay gi nee na Macky Sall moom ci boppam dem na ba nangu ne jamono ji li nga xam ne ma ngi koy def ne ab tournée économique maanaam rax na sa li nga xam ne moo jëm ci wàllum politique moom Macky Sall ci biir journal bi nee na élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal benn liste rek mooy am ci benn bokk yaakaar le solo yéene nee na njiitu réew mi di président Macky Sall ak tournée économique bi nga xam ne ma ngi koy def fépp foo xamante ni jaar na fa mbooloo mi dagg daal topp moo xam Fatick la moo xam Kaolack la moo xam Kaffrine la moo xam Tamba la yéenekaay gi de Les Échos nee na tournée bi njiitu réew mi di président Macky Sall lalal nañ ko tapis rouge fi nga xamante ni mooy Kaffrine na ko président Kaffrine ma ngi nii yéenekaay gi de L'As xëy duñu xibaar naan ñu Macky Sall neexul ba neexul waaye nag élection locale yi moom la ñu dëgmal la Macky Sall di wàcc ndax ne maanaam ma ngi koy amal ma ngi woote appel à l'unité Macky Sall ma ngi woo ñi nga xam ne ñoo nekk ci benn bokk yaakaar ñu joxante loxo élection yi nga xam ne maanaam moom la ñu dëgmal yéene kaay gi de ma ngi wër ne mooy ab électorat bi nga xam ne moo ama diggante Abdoulaye Wilane ak Abdoulaye Sow maanaam ñëpp gis nañ ko ci Kaffrine yéene kaay gi di Vox Populi moom Macky Sall daat nay ne lii nga xam ne ma ngi koy def wàllum politique ma nga ca yéene kaay gi ne na Macky Sall wax na waa Benno Bokk Yaakaar nee na leen localité boo xam ne am ngeen fa ay jafe-jafe ngir gàño ko teel leen ma woo ma ñëw dimbale leen daal di koy lijjante moom mi di président Macky Sall na musiba ak mbelenkaana ñi nga xam ne ay wujjëm lañ ci lu jëm ci wàllum politique ndax nee am na ñoo xam ne dañuy nekk ci seen ginnaaw clavier di saaga suba ngoon jàpp ne réew mi ñoo ko mooma waaye nag bu ñu demee ca élection danañu leen dóor ba ñu xam ne tekki wu ñu dara ci réew mi yéen kaay gi di critique xëy di ñu xibaar naan ñu tournée bi nga xam ne Macky Sall def fenn rek moo ci takk nga xam ne mooy Macky Sall journal bii de la sa nee na Abdoulaye Wilane bi muy def ab discours ama yi dañu ko doon yuuxaloo ay ndaw yoo xam ne ñoo doon yuuxaloo Abdoulaye Wilane yéen a kaay gi di réew mi quotidien bàyyi mbir moome nag wax ci Boy Djiné mi nga xam ne rëccaat na si kaso bi te Boy Djiné fa nga xam ne fa la ñu ko dugaloona maanaam cellule haute sécurité la yéen a kaay gi ne na administration pénitentiaire bi jamono ji nag daan nañu si ubbi ab l'enquête ndax gars yi ne am na lu làqu ca biira yéen a kaay la sa xëy xibaar naa ñu liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gii di seen o ñoom nag nee nañu dinañu amal ab grève boo xam ne grève bu tëdd dakk lay doon yéenekaay gi ñu xëy fekk fa Moustapha Niasse moom nag daan nay annoncé retraite politique am nee na lii nga xam ne mooy AFP daf koy bàyyee ndaw ñi waaye nag téewul ba léegi ñoom ñoo ngi firnde la seenu jàppale jëmale ko ci Macky Sall yéenekaay gi di réew mi quotidien El Hadji Momar Samb bu RTA daan nay wax ci avion bi nga xam ne jamono ji am na ñoo xam ne ñoo ngi mbamu Macky Sall nee na Sénégal dañuy wax lépp sauf l'essentiel yéenekaay gi di le quotidien ma jëmmal jaañe jël xalimaam nee na nag lànkal Macky Sall mujj na aw avion loolee mooy ñàkk respect Quotidien xëy na ci armée sénégalaise bi nga xam ne ma ngi def ay opération ci base bu Adjout Badiane yéen kaay di réew mi nee na armée nay bombardé ñi nga xam ne ñooy rebelle yi yéen kaay gi di esaat xëy na ci Chelsea mi nga xam ne jël na Ligue des champions ak Ballon d'or bi nga xam ne jamono ji ñenn ñi jàpp nañ ne Edouard mën na ko jël Ballon d'or africain yéen kaay gi nee na Ligue la Edouard Mendy jël ak juróomi record yoo xamante ni daan na koy na xëy wax ma ngi a baax